Boule Faté abonné. bis dina ñëw malaayika yi tàllal leen loxo ne leen waaw génn leen li ngeen ne woon moom mën naa wuutu alxuraan ci àtte ma xool ba xam ñu fayante ci ak yéen li ci yàlla fayante yéen nag mooy mbugal mu metti ndax lan dangeen doon diir mbagg yàlla xanaa xamul ne fii ngeen ñëw tey fekk ma fi ma war leen a àtte digeen suy ñëw par kenn ngeen na ngeen demee woon aduna du jitu par kenn ay cheikh sax buñ bokkee benn bir buñ tëdd mënuñoo génn ndaw faaw kenn jitu kenn topp ne leen nag léegi ñi ngeen waxoon ne ñoo leen jàngaloon ba ngeen ne ar ba wan na lef ba mën a bind téere boo xam ne day teg dañ koy teg fi teg alquran mu war a àtte dem leen indi ñooña ne ñooñu suñu leen duñu duñu leen mën a gis ndax fee la ñuy nekk ngeen nekk faa yéen ñëpp ñu bool leen teg li ñu leen di teg

nañ bàyyi xel bu ëllëgee ne dañuy dellusiwaat fi man te su boobaa lu ma wax ñamay àttaloo dañ koy def walaw tara id zalimuna fi gamaraati almawti walmalaikatu basitu aydihim axrijuu anfusakum alyawma alyawma tujzawna bima kuntum taquluna ala allahi xayra alxaq wa kuntum an ayatihi tastakbiruun ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء Boule Faté abonné.